mooy li xew te ñëpp xam ko. baamu nañ ko ba sonn. mooy yëf yi nekk nekkati mi ngi fi ba léegi te dafa gën a euh, doyaat waar. ndax euh, ñi muy dal mi ngi yokk yokkinu jéggi dayo nu ngeen ko gisee yéen waa opération daan doggali corona. Euh, jërëjëf sëñ a jërëjëf Georges Déthié ñu ngi rafetlu invitation bi di bëgg a dolli sunu sof sunu jëf ci liggéey bi. li ñuy njëkk wax mooy waxuma la waar mais ëpp na tool fi mu toll nii ndax waar moom lu ndaw la ci biir tool bi mais fi mu toll nii moom mbir mi dafa dar gémmiñ moom foo ko natt rek war na ko romb ndax euh, xam nga euh, mbir mi dafa déparé ci benn nit wër yàq àdduna kon ñun bu ñu demee ba nga xamee ne dégg maam nee nañu suñu xeex bi ñu koy xeex résultat yi ñu cay am ñu daal di def ak naagu naagu boobu nag jural ñu lii moo ba ñuy ba muy dem ñun dañu nekkoon ci corona du jaar ci man di avertir di liggéey pour deuxième vague bañ a ñëw ba deuxième vague ñëw ñu intensifier sunu liggéey ba ñu demee dama dem ba nga xam ne mbir maa ngi wàcc ba nga xam ne sax dañuy wër ay cas donc ñu ne nañ ko doggali ndax loo dem dóor ko ba muy lappi lappi doggali ko rek bu ko defee ñu tàggoog moom mu jeex malheureusement kilifa yi wàccee seen loxo daal di naagu jublu sa yeneen donc nit ñi tamit daal di di xool roy ci ñoom. finalement nag ñu àgg fu nga xamee ne euh, depuis mois de mai ah waxoon nañu ne bu ñu li ñuy gis ci terrain bi ndax def nañ fukki région ak ñaar li ñu ciy gis bu ñu ko maytuwul euh, musiba dina am te yàlla bu mu am. na na naagu boobu bi ngeen di wàccee ci euh, terrain bi. Mhm. lan la leen ci askan wi doon wax ndax ñoom gis nañu ñoom ci seen wàll bopp dañoo naagu wala dañoo topp ñi nga xamante ne ñoo di kilifa yi. ah non ñoom déjà boo ñëwee sax xam nga dañu def ay autocollants. ak yooyu di jox nit ñi mais di naxanteek ñoom mais da nga ah moom lii dafa amati kilifa yi sax faaleetuñu ko. donc ñoom dañu roy ci exemple bi nga xam ne moom la ñu gis kilifa yi di ko doxee or kilifa yi ñoo waroon taral taxawaay bi ba nga xam ne mbir mi dañuy tàggook moom donc nit ñi gëmatuñ ko woon parce que ñi ko ŋànk wane wu ñu ne danger baa ngi fi ba tey donc loolu nag ñun moo ñu metti ndax euh, depuis le 2 juin 2020 ba tey fanaan nañu ñetti guddi ndakaaru di wër di dem ci àll bi ci suñuy moyen bopp ci suñu xam-xam bopp ci suñu yéene bopp donc chaque fois li ñuy gis ñu dinañu avertir lu yàgg malheureusement euh, du ñu déglu nit ñi wala bokk li leen ñor rek la ñuy def wala bokk xëy na leneen ndax it feebar bi dafa am ci lu mu dépendre hmm. li muy bañ yow loolu ngay def pour bañ ko am mooy takk sa masque saxal set ngir wér loolu moom mooy li nga xam moo dépendre ci ñun mais yeneen yi ñuy wax ni yëpp genre solution la ay vaccin genre solution la mais jàpp naan li ajuwul ci yow yow mu amoo ci benn kii bu ñu demee ba naan ay probabilité troisième vaccin mais xam nga ne. troisième dose troisième dose. xam nga ne fi ñu jëm man de man gëmuma ko gaa dama koy waxee ne neexul ñu bari mais li nga xam ne moo aju ci ñu. te moom la bul yàq waay campagne bi. waaw yàqu ma ko fi am di. waaw na maanaam moom ma mais li nga ki ñàkku te demul di jël geste prévention di takk maskam di raxas loxoom ak saabu ah ku defoo lool di nga gis lu la di nga gis lu la naqari. Mhm. waaw. Euh, euh, li ñu dégg nag euh, kilifa yi yëkkati ko ci troisième vague bi conseil des ministres la njëkkee. Mhm. ñu doon xaar ay ay dogal yu gën a am pastef mhm. waaye. Euh, dafa mel ni euh, président Macky Sall gouvernement am dañuy bay bayal yëf yi. Mhm. démb dégg nañ euh, ab Diouf Sarr. ci ba mu jiitee réunion mhm. comité national de gestion des des épidémies ba ñu génnee dañoo foo foogoon ni dañuy dañuy gën a am ndëgër laay ci seen i kàddoog seen i dogal waaye. Mhm. nee ñu rek waaw nañu respecté geste barrière yeeg moytu leen tukki yeeg ñoom seen. ndax da ngaa jàpp ni gaañ dañoo am lu ñu ragal ci jël ay dogal yi war ngir ngir dakkal lii. Ah, bañ a ragal xam nga ñoom dañu am euh, culpabilité responsabilité morale responsabilité morale bi mooy lii am ñu mënoon nañoo euh, fexe ba du am alors fi mu toll nii sañu ñu jël benn décision radicale ndax yow li nga wane. depuis bu njëkk ba yaa ngi fàtte bañ naan bu ñu génn ay doomu kilifa di génn di def la ñuy def ba ñu ci ñàkk seen bakkan exemple boobu la kilifa yi war a bàyyi maanaam li ngay digale yow da nga ciy taxaw ba mu mat sëkk boo ko defee ñëpp mën la cee roy mais boo nee bul def lii ba pare def leneen mais kan moo lay topp kenn du la topp donc tey jii boo gisee man démb rek rapport bi ñu am ci seen euh, communiqué CNG bi mm-hmm. mais li ñu ci wax yëpp mooy lu nga xam ne ne lu ñu waroon a def bu yàgg la dañ koy dañuy répertoire noo xam ne waruñu ko woon bàyyi ndax dañoo def accu mooy dañoo dem ba bàyyi loxo or affaire bi ala accu la woon dañu waroon a jàpp mu tar ñu topp ko topp ko topp action ba mu sës man noonu ñi ma xam ñëpp xam nañ ne noonu laa mel dañ ma naan yow doo bàyyi mu ko ma leen non dama koy topp ba mu sës te topp ba mu sës léegi nag case de départ xam nga ñun ñu ngi ci doon doggale corona mais dañuy delloowaat ginnaaw dañuy demaat ci corona du jaar ci man mooy responsabilité individuelle la ñuy engagé waat ndax ñi ngi jógee luga mais bu njëkk bañ fa jaaree dañ dem ci daara yi désinfecté sensible mais bii bañ demee ci gaaru ceer yi ndax mooy foyer de transmission bi gën a gaaw donc ñii jaay à la sauvette mooy ñii jaay ci mbedd bi léeg nga ñëw tay tay lu gaare sa oto nit ñëw di la jaay nga sëqat na ko dama lay wàllu corona de mu daal di daw ah nga ne ko parce que kenn bëggul de mais boo waxtaanee ak ñoom ñu bàyyi ci xel nga jox leen ay masque ndax xëy na am nañ ko xëy na amuñu ko. mais yan dogal lañu waroon jël. mais dogal dogal bi gën. mooy benn masque yi waruñu ko mës a bàyyi ñaareel bi am na lu lu nga xamee ne tey service d'hygiène maanaam dogal yu bawoo ci kilifa yi laa wax. waa non fi mu toll nii xam nga li ñu wax nii rek lañ mën a def ndax xam nga am na li fi amoon. li fa amoon ñu askane la ko peut-être Ousmane ko xëy na loolu benn déclic la woon rek mais la ko kii mooy souffrance bi nit ñi nekkoon ndax li ñu naan ko sa yaakaar tas sa fi dëgër boo demee nekk ci ay jafe-jafe lekkatoo naanatoo mënatoo def dara li da nga naan mourir pour mourir il faut mourir euh, les armes à la main lu ma am jël donc lii am mooy simplement nañu dolli taxaw te li gën a am solo mooy li may wax boobu ba tey te dégluwuñ ko mooy ñun bañ nekkee conseil technique Issa Mbaye dañu def euh, épidémie du choléra mais boobu ministre bi dafa jël service d'hygiène def ko direction gén def ko direction tey waxuma direction mais ñi ngi naan président de la république na ko def direction générale ndax action sociale ak santé ñu def direction li tax ñoom seen liggéey du metti mooy waa service d'hygiène tey ñun heure bu ñu demee ci terrain bi waa service d'hygiène la ñuy gis ci terrain bi ñu ñu nekk ci amuñu ay moyen mais tey jii ba liñ naan xoddile ci ba nga lakkaleegul xodd la ci ba nga lakkaleekul loolu liggéeyu service d'hygiène donc nañu mettre l'accent su la prévention Ablaye Wade doo xam ne il faut pas courir derrière la maladie maladie bi amuñu ci benn maîtrise sunu techniciens yi sunu professeurs yi xarañ nañu mais tey euh, wax dëgg yàlla koo ci gis xam nga ne jaaxle na ne ne nag dañu mënut wax ñun nag on est ndax li ñu def ñu ngi koy defal ci suñu gëm-gëmu bopp di ko def en tant que citoyen conscient engagé mais nañu changer paradigme nañu def doole bi ci service d'hygiène mu doon direction général ñu mën a def la prévention en permanence. service d'hygiène de boo demee ci seen bureau yi sax euh, da ngay da ngay yéeme. ni leen ni leen nguuru Sénégal ñàkk a fonke. Mhm. non mais dafa yéeme xam nga injustice ba ca ne xoolal tey sur les ordres nationaux et jox nañu ministère de la santé jox na fal nañu ku ne. mais service d'hygiène amuñu ci benn nit bu ñu ci leen dugal muy benn ñaareel bi euh, tey maanaam dafa am direction bu ñu direction de la presse waa service d'hygiène ñooy liggéey li ñu naan golo di béy baabun di dundee ñii ñooy liggéey ñeneen ñooy capitaliser yore ay moyens mais ñooñu da leen nii da leen ni da nga leen en fait amatuñu du ñu amati motivation bien que c'est de c'est de je ne dis pas pour x ou y ndax man dama dund gis ni ñu mét ni ñu ni ñu maîtriser choléra ci temps bu ndaw ndax service d'hygiène guddi ak bëccëg ils avaient les moyens mais tey boo jëlee ñu nga xam ne par exemple euh, yaa ngi jëlal police cinq euh, mille ay gendarmerie mille cinq cent yeneen corps yi service d'hygiène nga di leen jëlal cinquante par at tudd toujours mais lan ban ambition nga am pour la prévention. yow li nga bëgg rek mooy na feebar am na jafe-jafe am après ñu door dàq ak moom kon nañu dindi loolu nañu indi dammel damel boobu mooy lii service d'hygiène moo yore mission bi nañ leen dooleel nañ leen kattanal bu ko defee liggéey bi gën a lool maintenant nag mbir mi fi mu toll nii du affaire u épidémie du affaire u euh, du affaire u hôpital du affaire u médecin engagement communauté bi la engagement communauté bi nag dépendrul ci ku ñu jox ay moyens pour nga def da ngay nekk ci terrain bi gëm ko ndax lii nga xam ne dañ koy tàmbali du sotti mooy euh, waxoon nga ma euh, invité woon nga ma fii mooy ba président ne clean day ngeen invité ma ci man ni leen clean day every day ndax clean day bi bañ ko defee ñetti fan juróomi fan pare nañ ci kenn waxatu ci donc dafa war a am suivi président li mu war a def mooy am unité opérationnelle de suivi bu ko defee gaa ñi sax ci terrain bi mën a topp ndax stratégie yi ñuy teg dina baax mais bu ñu ko mënul opérationnaliser de manière permanente sur le terrain du ñu àgg fen duñu ñu dem fenn et ça c'est un bal bi demoon na bay dugg ñu ràññee ñu ne Sénégal ci xeexam mooy deuxième au niveau mondial premier en Afrique ñu daal dinaa yaakaar na affaire yi jeex na bal bi dugg na or bal bi def ñëw ba ci ligne bi daal di fay taxaw. kon nag perte nañu effort yi ñu def yëpp sacrifice yi ñu def yëpp perte nañ ko mais ñun on a encore la force morale de se nañ ci boole ñi ñu ci war a bokk te gëm ko bu ko defee ñooñu dolli taxaw ci terrain bi mën a wax nit ñi. ndax du boobu médecin ak professeur yi taxawee di wax gars yi dañ leen déglu nii rek mais duñ leen dégg. mais ñu wax waaw. ci wàllu prévention boobu ak itam ngir casser chaîne de transmission bi euh, am na ñi nga xamante ne jàpp nañ ni euh, dañoo war a delloo buum ca booy booy ga maanaam euh, lépp lu jëm ci wàllu marché yeeg ñu delloowaat protocole sanitaire bi. Mm-hmm. ci gare routière yi mm-hmm. naka noonu. Mm-hmm. ak itam tëj yenn bërëb yi nga xamante ne moo di ay église ak lu ni mel est-ce que jàpp nga ne loolu waroon na bokk ci dogal yi. mais xam nga gaañi euh, man li may jaaxal mooy da ngay jël mesure wala nga jël benn décret wala loolu mais tant que abrogé woo ko da nga ko war a appliquer. maintenant kilifa yi ñoom ñoo njëkk nekk ay hors la loi. c'est comme port de masque bi ba léegi. Euh, bay teggeeguñ ko de ko mais oh ñun bañ nañ ko gis nga bañ demee ba Tamba dañu dem ci église yi dem ci grande mosquée dem ci police bi. defal leen parce que ñoom il faut nga protégé leen nga ñaaxaat leen ndax wax nañ ko ba ñu demee ndar nee na force de l'ordre yi teel a taxaw ndax dina toll foo xam ne ne ñoom dinañu sonn dootuñu gis seen njaboot dootuñu gis leen te duñ ci mën dara. tey ji demal bunt université fi njool coxeur yooyu nekk mais retraitloo ba fa ne jaxasoo bi fa ne te variant bi am presque jeunes yi lay gën a loolu démb rek dañu xeer yi dinañ doxantu noonu université mais bañ fa duggee rapidement distribué nañ fa trois paquets de masques ko wax mu la wax nga dëgg waaye ngeen ko bàyyi ko def ko pour sa bopp donc la responsabilité individuelle mooy boo nee du jaar ci man kenn ku ne engagé loolu kilifa yi aussi joxe tempo bu leer fi mu doon mënuñu imposer kenn dara ndax kenn ku ne yaa ngi wut loo yóbbu sa kër nit ñu amaguñu xar mu ne ñu woo la aw ma xar man la man amaguma sax buum. donc léegi diggante xar ak wér-gu-yaram moom ban la ñu war a tànn. diggante diggante xar ak moytu corona lu ñu war a tànn. mais wér gi yaram tey jii appel bi ñuy lancé mooy ñu ngi ñaan citoyen bi. na xam na ne toog fii mooy sàmm waajuram ya nekk ci dëkk ba toog fii moo gën ndax tey yi ngi fàttaliku am na ane boo xam ne ne élection yi mi ngi tombe woon euh, élection présidentielle mi ngi tombe woon ak tabaski mais ñu bëri daf leen ko jaraloon ñu toog ba lii amoon am kon ñu ngi ñaan nit ñi nañu moytu bouger. maanaam ku ko def ci politique war nga koo mën a def ci li nga xamante ne moo di wér-gu-yaram ndax soxla bu doonee ñaar daf fekk ne da ngaa wér ba pare. ndax pourcentage euh, euh, entre deux tours élection présidentielle 2000. Uh-huh. tombeek tabaski nit ñi toog fi ñu toog ngir xaar wote gi. jeex na te xam nga diggale yàlla taxaw na. muy tabaski mais ñëpp bàyyi nañ ko fa ndax xam nañ ne lii bëggoon nañ ko te lii rek li ñu def sacrifice boobu te sacrifice bii ñuy laaj nii kenn ku ne sa bopp nga ko defal defaloo ko président Macky Sall defaloo ko Diouf Sarr sa bopp nga ko defal personnel de santé boo dëkkee ak ñoom xam na ne sonn nañ ba fi sonn yem. frustré nañu yaa ngi dégg ñenn ñi fayatuñ leen ba affaire bañ ne affaire wàcc na la leen gaa ñu tourné wan leen ginnaaw fayatuñ leen yëgatuñ leen léegi il faut que ñu waa di fexe joxe donc moral bu amulee kenn du àgg fa loo ay ay ay ay ay bu moral amul motivation amul doo dem donc yëg bi nag moom moo am solo ñu ngi interpellé euh, le ministre Diouf Sarr qu'on toujours mi ñu xam ne dañ ko mës a jëfal ci stratégie ci management am mais jamono yi dafa bàyyi loxoom ba tëdd ci suuf voilà yow miy dem sax da ngay ñëw man ministère da nga fa bind ay lettre demande nga ñëw buñ la safaale. xanaa xanaa xanaa Diouf Sarr kay ko yab rek waaye. Mhm. daa am kilifa te kilifaam gi itam. Mhm. Euh, defut lu leer ci coronavirus gi euh, jebbiwaat. waaw moom daal xam nga président moom def na ay tournée am waaw mënoon naa ñàkk gaa ñun ba muy ñëw cees dañu dem jënd jël sunuy masque jël sunuy gel di ko jox nit ñi distribué nañu ay 3000 masques jox ko nit ñi moment bi gaa ñi di wute ay t-shirt ay ay affiche ñun loolu lañ ca def. te loolu moom mooy li am solo maintenant nag bon te jii explosion kaay dakaar la kon boo xoolee ne dakaar la te tournée bi doon Dakar kon parfois doon ne xëy na sa loolu mais li nga xam ne rek maanaam. ku ci ku wax li wax li wax la ci des ñi ngi tudd lool euh, tournée président public waaye opposition bi tam amal nañ ay manifestation yu bëri ci ndakaar wi tam. Euh, loolee itam euh, waxtaan wax waaw waxtaan wax dëgg ci la. mais mais xam nga opposition bi man fa laa nekkoon amoon fa cër bu am solo. ci Manko Sénégal mooy bi gën a mag. ma nekkoon benn ci ñaari plénipotentiaire bi nga xam ne ñoo nekkoon ci dialogue national bi mais gaa ñi gëmuñu réew mi seen bopp la ñu gëm kenn ku ne doxalinam mooy bu jaarul ci man du baax ndax da ngay gis seeni pratique doo ci gis kenn am na benn moment bu gaa ñi xewal benn affaire dañu ciy jéem wax tey jii bu ñuy wax ay affaire de code électorale yu yooyu cest à moment bi ñu war a xeex di ko topp de manière permanente duñ ko def dañuy bàyyi ba benn moment rek ñu jékki bëgg indi buzz mooy genre ñoom Diop Decroix yeeg créer ay fonds de résistance ak ay yu kenn xamut ñoo yàq dëkk bi ngi ngeen nit ki bu ne tey ok damay def quatre cent cinquante milliards muy président mais fa mu ko wax yow topp ci di ko topp di xool mën nga di suggérer ndax ki jël décision ki ne yow la ñu wóolu yaa naan fii laa koy def ndax yow la nit ñi ne yow la ñu wóolu maintenant nag yow am nga droit di ca topp di ca topp di ko topp pour que moom sax parfois. mu xam ne ne la mu waxoon gannaaw yàlla mën na ko mais nekkul parce que ña ko war a def ña ko war a seetu nañ ko war a defee defuñu ko fi kon yooyu nag di am mooy li nga xam ne maanaam président foofooy lii manque parce que yéene mi rafet na mais tey nga dem nga ni yaa ngi topp xaw ma tibb tànku président yaa ngi kii mais fi am fi ñu def pont te amu woon wala ñu def fatel te amu foon nga lu ko waaye daal di ne war na def lii ndax man mii li ma bëggal sama njaboot mënuma ko li ma bëggal sama bopp sax mënuma ko kon yàlla mi mënoon joxe li mat joxewul li mat mais nañu fexe fe li fi jot a nekk nañ ko topp ba mu sotti maintenant moom mu réussir mooy intérêt ñëpp maintenant bu jotee ci ñu seet neneen nu ñu tànn mais kenn ku ne def li nga war a def ba surtout population xam na ne kii kat wax dëgg yàlla mooy suñu njariñ il faut que nag le citoyen di bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñooy taxaw seen wet en temps ndax ki lay jox somme chaque jour moo gën kii toog ba benn kii am mu jox la benn miss bi nga topp miss bi mais kii somme bi bi nga doon lekk toujours boo ca jotul woon kon doo fekkee miss bi. xam nga li xew ci euh, li nekk ci ci structure sanitaire yeeg yu ni mel ndax xëy na da ngeen fay dugg ci seen euh, ay sensibilisation wala pour xam situation bi naka la tëddee carrément tey li ñuy dund ci biir euh, hôpitaux yeeg yi ñu naan euh, tension bu terrible fa nekk lii de réanimation yi daanaka jeex na ci ndakaaru euh, bu ñuy évoqué sax ay évacuer ay malade fii yóbbu leen ci yeneen région ya fan la ñu mën a yóbbu yow amatu fenn gi nga fi ñu jëm mooy li may woowee drame social loolu waxoon naa ko yàgg na xam nga tey li daloon ay ñi am plateau technique yu relevé yi nga xam ne nit ki day ñëw tëdd ndax ki nga branché sous respiration tant que nekkul génnul ci danger bi mënoo ko débranché léegi bu ñu naan ay àggan na ñu woon cinq léegi ñu ngi quarante y a un effort qui a été fait mais c'est insuffisant par rapport à ce qui se passer donc li nara am mooy na gaa ñi préparer yóbbu ay sécurité dans ces hôpitaux ndax di nga indi sa kuloo ko fonk sa wéjur wala sa doom wala sa soxna nga ñëw kenn mënu koo jël ndax amuñu fu ñu ko def mu daal di dem sa loxo léegi nag boo àndut ak sa ko boo matul nga toj hôpital bi te boobaa nit ku perte ko nga xam ne dafa mel ni dafa am refus d'assistance te du refus d'assistance ndax danga nga amul foo ko def comme nag ñun suñu doole bëriwul nañu def suñu doole ci li mën a nekk mooy na ñu def action bi sur la prévention te bu ñu développer prévention bi de manière sincère de manière pérenne maanaam ñu def ko de manière mu sax bu ñu saxalee set bi moom la ñu tuddee opération saxal set mooy mission service d'hygiène yaakaar naa ne dinañu mën a rek la lu bare bare bare mais tey da ngay ñëw ci dans un quartier mu am ay leader ay ñoo xam ne ñu ngi ñafe pour quartier bi toujours léegi am kilifa gu fa ne xëy na tey fal nañ ko directeur wala ministre mu jël ay booyam jox leen ay moyens ñoo ñëw bëgg a wu ca ña nekkoon di liggéey mais ñoo du leen topp boo indee moyen gaa ñi jël mais boo demee gaa ñi bala nga dem donc foofu laa bëgg ñu bàyyi xel xool ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy nekk ci terrain bi ñu gunge leen bu ko defee ñu am résultat bàjjenu gox yi ñu ngi ci terrain bi mais koo ci dajal Thiès gi mu mujj quartier yi ñu ngi ci waxtaanal mais dañuy sonn sonn yaa ñëw di leen may ay polyvitaminé di leen may ay garab di leen may ay ay bagage di leen encouragé n'est-ce pas parce que bëgg nañu mais amuñu ay moyen amuñu leen donc moyen nañ ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu mooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo nekk ci terrain bi mais buñ ko yemalee ci ñu nekk ci bureau yi di rapport rek di loolu dañuy nax sunu bopp. jërëjëf Déthié Diouf. Mm-hmm. njiital parti visa jiite itam opération doggali corona jaajëf Georges mm-hmm. jaajëf euh, faateek ñi mu àndal ñu yendoo jàmm. jaajëf euh, Babacar Fall ñu ngi lay delloo nuyoo di la euh, wax nekk aljuma mubarak ak euh, ñi nga bokkal rajo ba yépp di ko ñaanal également suñu téléspectateur yi ñu soog a dab yegg si nañu ci ñaareelu pàcc bi xabaar